C'est l'émission Babul Houda. li takwiini recha il radi tabarakallah del si wat ki ci kàttanu ki yàlla ak mbaaxam di ziyaara ñëpp ke zelik, di bal haq ñëpp wayi di bal lu haq ñëpp te di ñaan yal nañu yàlla boole jéggal di ziyaara waa groupe Sajada ak dë waa kër soppe Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa kër soppe Oustaz Bibi Diouf yi ak fu ñoomante nekk waaye bu ñu ne soppe sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa su ma néew naa na ñi ko sop ñëpp a yëkkati seeni loxo tabarakallah képp ku ñu ngi lay ziar fekk la fa nga jox la ziar bu wér a wér a wér a wér alxaaja Mariama Ndaw tabarakallah sayidina alxaaji Omar sayida Binta Dem ñu ngi ñaanal ñëpp ajaa fanjaa moo tefes tabarakallah mbokk yu tëddi fu ñoo mënta nekk waye di ñaan yal na yàlla dolli saxal jàmm ci réew mi saxal ko ci àdduna si musal ñu ci lépp luy ay xeeti dog-dog yàlla sàmm ñu ci zahira ci baatin yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñuy njaboot ay mbokk ngi fële ñu nga tawat yàlla saafara leen boo demee ci lalu hôpitaux yi da nga ne réew mi ñëpp a feebar ndax xeeti feebar boo fa mënte yóbbu rekk yaa ngi ko fekk mu bari ca hôpital boobu waaye yàlla rek a mën yàlla mi koy tegi moom rek a mën way na mu ko teggee jaam yi noonu la ko mën a teggee ca na moo gën a gaaw yi ñu ngi koy ñaan yàlla nga teggil ñi bépp xeeti feebar bu nekk ci biir yaram yi yàlla ñu ko teggil yow bur yàlla ñu ne nga sàmm leen dafa leen wér ba ñu delluwaat ci seeni njaboot waaye mu mel ne tamit am na ñoo xam ne ñi ñu ngi ci kër ya di ko sooxali ndax xëj na ñàkk am doole bu ñoo fajo waaye ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla fëgg xolu jaam yi xiirtal leen ci ñooñ ba ñu mën a am lu ñuy fajo yal na yàlla ibbi leen bunti xéewal yi ba nga xam ne ñu faj ba fajaali ñeneen am na ci ka nga xam ni feebar na waaye mënta toog ndeysaan ndax suturlu la muy suturloo mënul toog la njabat gi di suturloo tax na ba mënul toog mu ngay soxali feebar ba di dem di daani dooleem waaye yooyu yëpp yàlla gis na ko yal na yàlla saafara ñëpp waaye mbokk ngi fëri tamit caabi féeti na leen gannaaw dañuy ñaan yàlla yal na yàlla teggil leen loolu nga xam ne moo tegu seen kaw waaye gannaaw bi leen ko yàlla teggi leen nag la bu ñu dellu ci la leen fa duggaloon sëgam ñoo ko def nekk ah toujours bu ñu ciy wax loolu dañ koy tëje sëgam ñoo ko def ndax gis nañu fi Yuusuf yëgul tiinul ñu ne ko yow la tëj ndax foofu dafa di béréb ba nga xam ni ni dana fa dugg parce que moo tey def la ko fa dugg kooko nga ca biir waaye nit dana juum juum dal ci benn mbir loola yóbbee ko dugg kaso ci loo xam ne du jikkoom waaye tamit nit a ngi fële yëgul tiinul jékki ñu fëgg ko ne ko yow la kaay kon ñu ngi ñaanal ñëpp réew mi yàlla na fi yàlla dolli saxal jàmm suñu réew mii di Sénégal yàlla nañu yàlla musal ci xeeti fitna yi nga xam ne mu ngi yeewu ci kaw suuf jàmm ci la lépp xaj su ko defee nag ñun ci suñu bop yàlla dogal na woon nañu wéru koor ba jeexal nañu ko alhamdullilah ñu waroon a ñëw gi yàlla dal di ñëw te weeru ko la ba jottu ñoo téw ci émission wayi kazalik aljuma tombe woon nekk bés ba góor gi génne woon àdduna ñu doon ko ñaanal yal na yàlla yërëm ko ak mboolam ñi faatu dañ leen di ñaanal de bu ñu leen di fàtte mukk ñoom ñi faatu ndax ñu nag ñoom la woon démb tey ñu ngi ci biir suuf ëllëg ñun ñu dugg ci biir suuf te danañuy yittewoo koo xam ne moo ñuy ñaanal kon nañu leen di ñaanal fu ñoo toll ah tabarakallah ñu bàyyi xel suñu dund bu ñuy dund ci àdduna si ndax léeg-léeg àdduna njuy ñu ànd ak seytaani mu dooleel ko ba mu am réussite ci suñu kaw waaye ñun doomu aadama yi waruñoo nangul loolu waruñoo nangu mbindeef ni ñun di ñu moyuloo borom bi nga xam ne moo ñu bind ñun ñépp nag loolu bu dalee nit ki dafay xaw a niroog doyadi ndax yàlla màggaayam na mu toll شيطان نيو كفني ما ترقي سلون لنيو كدي بايخل تدي توكي على سبحانه وتعالى لا تنيو دجاك موم ndaxte ñi fiy bàyyi ko àlla kulli xaal wuyi ji kon nag fi nga mën waajale sa bopp gis nga benn góor dafa jékki dëkk ñuy yeete xëdd dal di ne jóg leen waaj waaj jot na jóg waaj waaj jot na mu daal ne bërët ci kaw lal ba daldi toog soxna si ni ko mbaa du kii yuuxu yi mu doon yuuxu moo la tiital ci nelaw ba nga yeewu mu ne ko du yuuxu yii de waaye parole ba mu génne ci gémmiñam moo ma tiital mu ne ah la mu wax kay may jóg leen waaj rek waajal xëdd waaj jot na mu ne ko sa dégg a gàtt man déggeewuma ko noonu de déggeewuma ko noonu mu ne ko noo ko déggee mu ne dafa ne nañu jóg waajal suñu bopp préparer suñu ëllëg yowmal xiyaam ndax tekk du waajal ko jot na de jotoon na waaye gën naa jot nag man foofu laa déggee man kon nañu waajal suñu bopp laata ñu ñoo waajal ndax bu fekkee ni waajaloo woon sa bopp ñu lay waajal perte nga bi ci topp mooy nañu sangu set ci ay bàkkaar laata ñu ñoo tiimale ak ndox di ñu sang te fekk ñu ngi fees dale ay bàkkaar su fekkee ne danga fees dale ci ay bàkkaar mbokk yi di la sang ñam ñuy sotti ndox mu sedd lañuy sentir waaye yow ma ñu koy sotti lay sentir bu fekkee ni sa dara baaxul loolu question la boo xam ku nekk war na di ko bu fekkee ni bàyyi woon xel yàlla ak mbokk yi nga dem ba ginnaaw àdduna mbokk yi tiim la ñoom ñi la tiim ay doomi aadama la ñu amee xar kanam yu leer waaye yow lan ngay gis nag question la bu jara bay xel fàttalikul ne bés dañuy ñëw yow doomu aadama ti si ba nga gënoon a doyadil lañu la sànge dila la yóbbu kër gu mujj kon boo nekkee ci àdduna puukare àdduna bu mu la ñor mukk waaye xoolal tey ñaata ci ñoo xam ne puukare àdduna jàpp ne leen ñu ngi puukarewu ba mel ne duñu dee ñu ngi puukarewu ba mel ne duñu dugg biir suuf waaye ñooñu bu ñu demee ci yàlla la koy wax lu ñuy wax yàlla ndax koo xam ne yàlla tudde la abd jaam kon yàlla won na leen waroo mën a ngand ngandul ana jaam ak ngand ngandul ci kanamu sàngam yàllaa ngi fi moo ñu moom kon nag bu ñu rëy rëylu nañu ko évité nañu ko maytu Seyid Abdou Fall ñu ngi koy ziar bu baax waa Sébi Xutaan macha allah ak way jël waa Seynabu Siis tabarakallah kon lu fi jar ngeen ne lu fi jar wanewu amul lenn loo fi moom lépp loo yor di nga dee bàyyi ko fi kon loo fi moom bu dee kër yu rafet yi la di nga dem bàyyi ko fi bu dee alal ji nga amoon la di nga dem bàyyi kofi njaboot gi nga am di nga dem bàyyi ko fi kon ana moo ci jar nit ki di ca puukariw dégg goo leen kenn ku ñu wax ni suul nañu ko ak xaalis ba moo amoon pour bu demee yomal qiyaam mu mën ka financer foofu amul nit ñi de léeg-léeg ni dana génn àdduna ñu épargnel ko tijjil ko benn compte ñaa ah, kii ke dañ koy ibbil ki ñoo am pour bu juddoo ñu continuer di ko ci dugalal balaa muy màgg dina fekk compte bi am doole mu mën koo jëriñoo danañu ko def waaye doo dégg mukk ñu ne nañu ko cotiser dencal ko xaalis bi pour yow yowmal xiyaam ñu jox ko ko c'est parce que foofa ñu jëm ko nekk la la fay servir la nga fay financer yaa koy créer sa bopp fii ci àdduna te may jëf ji nga xam ne jëf nga ko fii doog a dem guy ji boroom kon nañu ko di sóorale bu baax fexe àdduna ba mu ñu gënal àllaaxira mukk ah néew bu ñu am lu baax de nañu am lu baax oto yu baax yi baax na kër yu rafet yi baax na lépp lu lew te baax baax na waaye bu mu la soxlaal ba doo jaamu yàlla moo tax lu ñu ci gis képp ku xam ni loolu sa jikko la bés boo génnee àdduna su fekkee da nga bokkoon ci ñi nga xam ne alal moo leen soxlaalo ba tal ñoon jaamu yàlla boo génnee àdduna lay wax yàlla maa ngi lay ñaan nga delloo ma àdduna ma dundaat mën di saraxe def lu baax waaye fekk c'est trop tard parce que fi nga ko waroon a defee nga ko defewul Seyida Astou Fati ñu ngi koy ziar bu baax kon lu ni def ko fa nga ko waroon a def lu ni waxtu wa nga ko war a defee ci lu baax defee ko fa laa tuaxir amal al yawmi ila al ghad waaye li ñu yàq mooy waaj gu metti dañu fiy nekk di waaj rek danaa def lii danaa def lii ci lu baax fàtte nga ne ñu ngi lay waaja toujours dañuy tromper suñu bopp yaa ngi waaj pour def benn mbir waaye ñu ngi lay waajal te yëguloo moo waral na nit kooku bu génnee àdduna dafa naan yàlla te maa may ma dundaat tuuti ma mën a saraxe def lu baax yàlla ni ko a wees na fa ko waroon a defee passé na yàlla nañ ci yàlla musal mu mel ne tamit nit ki bu génnee àdduna mbokk yi daldi ne nañu ko préparé jullee ko waa bu dee koo xam ne daawul julli loolu wóorul de kon nañu jullil yàlla laata ñu ñoo julli nañu sonn ci jaamu yàlla gi ndax jaamu yàlla méttiwul boo xoolee suñuy activité yu ñu amal suñu bopp ci journée bi par rapport ak activité yi nga xam ne ñu ngi koy amal suñu diggante suñu boroom jëlul suñu temps et pourquoi nous négliger bu borom bi nag suñu bos gën a métti ñu favoriser suñuy yëf dangay gis koo xam ne yàlla daf ko naan julli julli waaye fii lay bàyyi waxtu julli defi loo xam ne moo gën a métti julli mathalan heure julli jot au lieu que muy julli mu dem football yi mu dem di dawi te kenn daxiwu ko te fekk mu ngi festel ci boori julli te pourtant julli julli gi moo gën a oyof loolu weeru koor day ñëw nga war a woor nga bañ ni doo woor nekk ci sa activité bopp yoo xam ne moo gën a metti woor waaye nga am fitu mën a osé jàkkaarloog yàlla nekkoo duma la wooral nga war a saraxi dimbali doomu dem yàlla bëgg ko ci yow nga am sañ-sañu taxaw ne yàlla li nga ma dénk li nga ma jox ci alal mako mom duma ci dimbali kenn te pourtant yàlla mo lay dimbali nga ne do ci dimbali kenn irhamu man fi l ard yarhamukum man fi samaa ku bëgg yàlla am ci yow yërmande ku bëgg yàlla dollee taxawam ci yow nan ko taxawul jaamam yi ne ci kaw suuf nga yërëm leen boo ko defee rek yàlla fekk si la incha allah doo dégg mu ñu ne jël na alalam def na ko ci yoonu yàlla perte na déedéet du saam saa yoo defee ci yoonu yàlla rek yàlla ngi la koy xaar yàlla lëkk kon nañu ci góorgóorlu waaye malasaf dañu fiy nekkee rek jàmbat ku métti da jàmbat léeg ba nga fàtte yàlla yàlla am na ndax dañoo jël suñu bët teg ko ci alal dangay dem ba mel ne yàlla defalu la dara ndax yaa ngi jël sa bët teg ko ci ne amaam richesse mu ngi ci amaam yaa ngi jàpp ne dund gu neex mu ngi ci amaam léeg-léeg nga dégg ku ne yàlla daf ma fàtte xana mais loolu wax ju yàqu yàlla fàttewul kenn ndax yow mi koy wax yow mi ko tal ba di ko wax am na koo xam ne mu nga ca lal hôpital ya boo amoon li nga am tey jii dana sant yàlla léeg-léeg nga feebar ba ne waaw yàlla laa ko def ba mu teg ma nattu gu métti gi bul yaakaar mukk ne dafa laa bañ déedéet waaye sop bu mu la sop moo tax mu tek la net googu di xol nak naka ngay réagir le mu tek le feebar bu métti métti métti métti métti nga salit wax lu ne mbokk yi salit lu ne ñu wax waaye fekk borom bi subhanahu wa taala amna lu mu la préparer la lëkk waaye do ko xam fekk borom bi bëgg na la sippil ay bàkkaar effacel la ko te foofa la ko mën a jaarali waaye yëgoo loolu mettit bi metti na waaye bul salit mukk waaw bul salit mukk ba tax na yàlla na ñu yàlla dolli jàppale yàlla na ñu yàlla dolli defal sutura àdduna ak sutura laaxiru defal ñu saadate daari waaye nag saadate daari nit ki nag mooy ki nga xam ne mooy defee ay jéego te dange àdduna ak te gis nga teddaange àdduna mën ngaa bañ a woomal te am nga teddaange àdduna ndax xéewal xéewal la ci ñoo fi nekk di jël xéewal boo ko féetale ci amaam waaye xéewal baatu xéewal dafay yaatu waaye bu àllaxira nag yow nit yaa koy liggéey fii nag ci àdduna de bokk na ci xéewalu àdduna yi yalla def la nga nek jullit musulman waaye nek musulman ñaar la par situation musulman par conviction amna ko xamni da fay dafay mbubbu musulman la jullit la rek c'est parce que ñaari way juram yi juddu na fekk ñu nek ay jullit mune man jullit la waaye du tontu du pratiquer nag mu wax ne jullit laa waaye am na koo xam ni kii pas-pasam moo dëgër ci lislaam mu fekkul way jur ñu nekk ay jullit waaye lu mu gëm mooy lislaamam moo ko war a avancé boppam lu ne ci lu baax mu koy def lu ne ci jaamu yàlla mu koy def kon nag nañu ko di bàyyi xel bu baax waaye maa la saf ci suma xalaatee ba xool suñu dund tey ni ñuy dundee bari na loo xam ne mu ngi ñuy arrivé ñoo ko yóbbee suñu bopp bari lu ñuy ñaan duñu ko gis ñoo ko yóbbee suñu bopp dama ciy dem sax ba di wax ni la daloon waa Basra dafa mel ni moo ñu dal ndax Ibrahim ibnu Adham nekkoon góor gu yàlla may dafa dem dëkk bu ñuy wax Basra ñëpp daal di daw wër ko mu ni leen mbaa jàmm la ñu ne ko góor gi du jàmm mu leen lan moo xew ñu ni ko ñun bu njëkk bu ñu mësaane ñaan bu ñu nee allahumma rek yàlla yi bi bunt yi waaye léegi dañuy tàllal suñuy loxo allahumma ñaan yàlla ci côté bu ni waaye duñu gis dara ñu xam ne yaa problème problème am na léegi nag problème boobu nag am suñu diggante suñu borom ba nga xam ne connexion bi dox dog na connexion boobu li ko dog la bëgg xam lan la ndax bu njëkk bu ñu mësaan connecté waa ak borom bii rek jot ko waaye léegi dañuy connecté def lu ne waaye duñu jot borom bi moo tax mbokk yi bu ñu nax suñu bopp gis nga jumtukaay yu àdduna yi bari na luñ ci mën a jànge portable bi nga yor bari na loo ci mën a jànge connexion bi ku nekk ya ngi ne pour am portable bu la connexion bu baax ku nekk ya ngi portable cher la connexion bi mën na mais l'un sa connexion sa diggante sa borom doo ko wutal jumtukaay yu de connexion bi mën na am relation directe moo tax ma ne bari na ki jël portable am ne daf koy yóbbu ci réparateur bi mu rekk mu réparel ko ko parce que du am connexion bu doy du am connexion waaye fekk moom ci boppam njëkk boppam la waroon a njëkk réparé connexion bi doo digganteem ak boroomam te mu dokk mu xool naka la koy réparé ba mu amat connexion boobu waaye àdduna moo ñu yitteel moo tax suñu diggante suñu boroom relation boobu yitteeluñu relation bu ñu am ak doomu aadama yi di jokkoo ak ñoom ñoo intérêt ci ni ñu ko gisee loolu moo ñu intéressé moo tax lu ñu ci gis toujours yàlla ngi ñuy seetaan rek yàlla ngi ñuy seetaan ndax dañoo dem ba ci yàgg jël yàlla ne ko ñu ko teg ko nele ne ko toggal foofu yitteelooñu waaye lu ñu yitteel may mbiru àdduna bàyyi ñu ñun ñu jëflante suñu biir yow toggal noonu rek yow yàlla dafa am ful mu toog seetaan ñu rek moo tax dañuy tañax tañaxee ba sonn dugg ci dugg ci lu ne ma ne dafa mel ni la daloon waa Basra moo ñu dal Ibrahim ibnu Adam bañ ko ne lu ñuy ñaan lu ñu ñaan dara du baax mu ne leen nag xool naa ne connexion bi di doxoon seen diggante seen booroom réseau bi moo dog dafa dagg te na ko amul réseau kenn du la mën a woo boo amul réseau doo mën a woo kenn te kenn du la mën a woo waaye gis naa ne yéen seen réseau bi ngeen a amoon seen connexion moo dog seen diggante ak seen boroom. mais xolal ma mag ñi lay seen kenn du ñoom ku ci mësaan na wax allahumma yàlla yi bi la bunti nga am soxla ti tijji quranul karim jàng yàlla fajala saajo nga jël téere ci téere mag ñi ñami sindiidi suñ ndiiti nga jël tey siir bi tey bi rek mag ñi bu musaan toog ba jàngoo ko seen aju dafay faju waaye mu ngi aju nag te la muy sentir moom ñi koy jàng te danga koy jàng ngir topp neexaayu aération ba rek wala danga koy jàng ngir am ci yek yek ba nga xane mak mag ña moom lañ ci xamoon na yoy mag ñi mu ñu jang yoy yooyu rek muy ne allahumma rijal yàlla yi bille kee la moo tax léegi ñun dañu koy jang alquran jang lu ne bu ñu ne allahumma yalla ne du ñu deg ku ñuy wuy kon war nañu xolaat suñu bop na yalla amul defo kon defo bi si ñun la Ibrahim Ibn Adham ne len liñ njëkk a dog liñ njëkk a dagg connexion sen digënté sen borom moy araftumullah falam tuaddu haqqo xam ngeen yàlla de ko ci laaj kuy sa borom mu ne la yàlla way haqq bil wara dox sen digënté sen borom yéen doomu yi dangeen ko sàmmul xam ngeen yàlla waaye sàmmoo leen àq bi dox seen diggante ak seen borom sàmmuñu ko mais xool yàlla yàlla subhanahu wa na mu ñu bindee ñun doomu aadama fa mu ñu jaarale te fuñ ci àgg rek nekk na étape boo xam dana nekk étape boo xam ne danger la ci ñun ndax mën nañu fàddi waaye yàlla di ñu sàmba rek nekkoon toqantal ma nii dem ba nekk lum nekk suux yooyu yëpp nit a ngi ci biir te ku nekk xam na biir la fa nekk la ko ëmb nga mënoon faa fat ci yooyu yëpp waaye yàlla ci xereñam ak màggaayam mu sàmm la fa yaay di daanu yàlla di la sàmm yaay yi tëdd di nelaw yàlla di la sàmm ah yooyu yëpp yàlla di la sàmm ci biir nga dema dema dem ba war a gane si àdduna nga nekkat ci danger summa sabila yassara yàlla yombal la yoon nga génne si àdduna waaye nga dema dema dem ba yàlla jox la kàttan nga am sañ-sañu taxaw ne nag yàlla existé wu du tekki ne danga ko koy wax waaye la mu la digal nga bañ ni doo ko def la mu la tere nga ne ci loola ngay nekk comme yow gëmuloo existence yu yàlla Seyid Mohamed Lamine Ndong ñu ngi koy ziar bu baax tabarakallah kon gëmoo ne yàlla mu ngi exister te loola nag nit ki war na ko di sooraale ndeysaan nga dem ba taxaw ni yàlla yëgguma sax na yaa ngi fi ndax la ngay def amul lenn loo ci ragal amul lenn loo ci nëbbatu boo koy nëbba nit ñi sax ko nëbba yàlla te wóor leen yàlla ngi lay contrôler foo mënta nekk يلا ننا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد sabu mu xol maa la ko gën a jege kon lépp loo nekkee man yàlla xam naa ko waaye nga dem nag ba yëg sa bopp nga won yàlla ne ko man yëguma la moo tax mu ne xam ngeen ne yàlla am na araftumullah falam tuaddu xaqa amul jëriñ kuy sa borom nga ne yàlla te li dox sa diggante sa borom nangoo ko sàmm mu ne kooku mooy benn bi njëkk bi tax seen connexion ak seen borom dagg ba amatu leen benn relasion mu ne ko bi ci tegu mooy qaratumul quran falam taamalu bi xoolal jàng alquran ñaata yoon koy jàng ñaata ci yu fi nekk yi jàngale alquran ci ay bés yoo xam ne ñu a ngi daje di wàccee kaamil kër goo dugg yaa ngi fekk ñu teg benn kaamil ci salon bi waaye meuble la kenn du ko jàng moo tax mu ne da ngi jàng alquran waaye nangu leen pratiquer li alquran wax yaa ngi jàng alquran alquran ni dee leen dimbali doom aadama yi nga bañ ne doo dimbali kenn alquran ne dee leen julli nga ne duma julli alquran dig lay jëf yu baax nga ne duma ca nekk kon amul sens kon nañu di jàng alquran waaye nañu pratiquer alquran gis nga ñun Sénégal ak àdduna si lu ñoo sonnal mooy dañoo pratiquer wula al quran Seydi Ousmane Sis tabarakallah bu baax waaye bu ñu doon pratiquer al quran àdduna si bu la neexee nga jaay ba waxtu wàcc jot nga bàyyi noonu sa magasin dem bu ñu doon pratiquer al quran wallahi al azim attewukaay ya dana wéet waaye ñun ci suñu bopp dañu pratiquer alquran da dangay tooñ def loo la neex te alquran tere na ñu war laa àtte nga am foo jaar ba xëj na sax ka war a àtte mën naa wàcc ba naa utiliser alquran daal di àtte kooku beneen coono bu ñëwaat la. waaye alquran mooy li nga xam ne mooy li wóor ku ci àtte wu doo ju mukk ku ci def dundam doo taraxiis mukk mais nag lu ñu mënta daal ñoo ko yóbbee suñu bopp ndax yàlla nee na ñu ngi nii téere baa ngi nii boo demee ba nara réer xoolal ci téere bi nga gindeeku kooku wàccoo na ak ñun kon nag moo mu ne leen yéen waa dëkk yéen waa Bosra yéen a ngi jàng alquran waaye nanguwu leen pratiquer alquran loolu bokk na ci li tax connexion bi dox seen diggante ak seen borom daal di dagg. mu ne leen bi ci tegu mooy yéen a ngi dox. di wax ni seytaani seen noon la te yàlla waxoon na leen ko inna seytaana lakum adu fattaxizuhu aduwa seytaani seen noon la bëggul leen te wax na ko nag kon nag bu kenn xaritoo ak moom jàppee lu ko mënte muy noonu moo tax mu ne qultum inna shaytaana aduw fa waafaqtumuuh ñu ngi ñëw di xaritoo ak seytaane moo ñu gën a lu ne nag xaritoo ak seytaan yi moo ñu gënal lu ne te nit ki nag boo doon xalaat lu bëree bëri bëri di nga moytu yoonu seytaan mais xoolal ma ki dem ca soirée ba mu ne soirée am na ca grand théâtre wala fu mu mënta doon nga fat waxtu julli yi dal di dem daldi dugg sa xel ba nga duggee sa xel fa la waroon a commencé di xalaat ñu lay tëggal ndënd ya te tëgg ndënd nga waroon a commencé di xalaat ne li ñu foor ni ba di ko tëggee der bi rab bu doon dundal waaye tey jii dee na nga war a xalaat ne lu mu yàgg-yàgg ni rab bi lay mujjee kon xaaral ma génn ñibbi sama kër bañ a caaxaan waaye doo ko xalaat nga war a xalaat ne bant bu ñu yattee ndënd bi garab bu doon dundal ñu gor ko daal di ko defar ndënd nga war a xalaat ci loola ne ah lu ma yàgg-yàgg nii lay mujj ci dee laa jëm kon xaaral ma dellu sama kër jaamu ji yàlla waaye doo ko xalaat yaa ngi topp sa hawa uh, nafs bànneexu bakkan te bu ñu ne bànneexu bakkan rek ne seytaan nga topp ko nekk mu lay dugal ci ay xeeti caaxaan xaritoo nga ak moom te pourtant yàlla avertir na la dimb balaa tey di ñëw ne la seytaane sa noon la na ko moytu na ko jàppee moo tamit noonoo nga ne yàlla duma ko noonoo dama koy def muy sama xarit te tey ku ñu ne woon diw sa noonu pàppa la waxuma la sa noon de waaye diw sa noonu pàppa la foofa ngay jaari foo ko séene dangay daw waaw foo ko séene di daw parce que sa noonu pàppa la mais yàlla xool ko nee nañu kii seen noon la au lieu ñu mën ko noonu ñu ne ko yàlla déedéet kii suñu xarit la ndax yu neex yi muy xiir te suñu bakkel moo tax fàtte nga ne yu neex yooyu ngay wax yooyu yàlla araamal na ko kon nag loolu bokk na ci li tax relation bi doxoon seen diggante seen boroom daal di dagg kon ñun lañu xoolaat suñu bopp di lañu xoolaat suñu bopp defaraat suñu bopp ndax yi ñu wax waxagum yépp dafa ñoo dal ñun waa Sénégal seytaani bala may ree rek ñu ne ma lañuy toroxal seytaan toroxal seytaan yi boo xam ne góor ak jigéen ñu nga jaxasoo ku nekk mel na la neex jaxaso ci benn bërëb di fekki def lu ne ci lu bon booy laaj lu ngeen di def ñu ne dañuy toroxal seytaan ma ne ñooñu koy toroxaluñu seytaan waaye kiy toroxal seytaan mooy ka nga xam ne seytaane woon na ko ci benn biir mu tànqam lu ko ba ne du dem kooko toroxal seytaan te mu mel ne nag dem nañu ba nga xam ne ci suñu réew mi di Sénégal yoonu seytaane dooleel nañu ko ba dëgg xaw fee tumurank ah, yoonu seytaane dooleel nañu ko ba dëgg xaw fee tumurank mais woote léegi rek ci mbiru seytaane léegi mu fees mbiru seytaane woote ko léegi rek léegi mu fees mais nga woote ci wet ki mbiru yàlla benn benn ci ñu baax ñi ñoo fay ñëw kon seytaane am na doole ci suñu biir te bu ko amee nag ñoo ko ko may seytaane bu amee doole ci ñu kaw ñun doomu aadama yi ñoo ko may ndax pexem seytaan yi amul doole waaye mu ngi aju ci nit ki nga xam ne moom lay jëflanteel ca lay mën a amee doole walla fa lay mën a jaaree néew doole xeex la boo xam ne ku nekk foog nga xeexal ko sa bopp xeex ak seytaan ku nekk yaa koy defal sa bopp te bul ko may benn ruq bu ñu mën a jaar ba dugg sa biir bu ko amee rek exploité ko exploité ko te day réussir kon nag nañu noono seytoon bés boo demee ba sa xel dem ci dem ci dem grand théâtre ngay naaxee ak sama bakken bi dem ca daayira ba nga dem ci daayira ba nga am jàmm am sa tuyaaba mucc nga waaye bu fekkee nag fu ñu la ne acca rek nga ne acca seytaane da lay gën a moom kon loolu ñun waa Sénégal bokk na ci li ñu yàqal seytaan bokk na ci li ñu yàqal mu ne ko bokk na ci li tax connexion bi dox seen diggante seen borom dagg من الذي اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم نتكن نتكن كينيون أمغا عيب إلي تان كن دم دكو رقو منا كن خلا عيب ينكي يونغا ريباريكو waaye duñu ko def dañuy fes dële ci waaye fii lañuy ñuy bàyyi suñu bopp di rek la ay yibu jàmbur cttt fi sa ay yibu bopp mais da ngay te koo gis na muy rek la muy lijjante ay yibu jàmbur di ca wax mu ngi yor loo xam ne kenn xamul ñaata la toll mooy li ñuy wax rek da ngay am sa panu mbalit sa biir armoire wala nga lijjanti ko xol no koy génne sànni ji ko waaye déedéet foofu nga koy bàyyi gis ko xane potu potu mbalit dong la yor ngay lijjanti potu mbalitu jàmbur te nga lijjanti sa bos mu set benn yoon te bu fekkoon ne ku nekk na la bon ci yow bi nga ko sànni dund bu neex la ñuy dund wallahi alazim waaw bu fekkoon ku nekk la bon ci yow seppi nga ko sànni kenn ñu gën leen neex le dund waaye taluñu ko taluñu ko yaa ngi yàkkamte génn toog sa buntu kër am ko fa romb wéttali la rek nga commencé nekk ci yëfi jàmbur yi ayibu jàmbur te yow ci sabab yaa njëkk ayib ndax li ngay def nii rek ayib la li nga lijjanti ayibu jàmbur loolu ayib la ci yow waaye te nga ko lijjanti dindi ko mu set ci yow nga noppal waaye nekk ci yëfi jàmbur nekk ci deru jàmbur ah? lu sa yoon yaa ngi cay wax lu sa yoon newul yaa ngi cay wax di jëw rek fàtte nga ne yaa ngi lekk yàpp jàmbur te ku la ko wax nga mer ndax kiy jëwaate dafay mel ni dafay dunde yàpp jàmbur ndax ba ñu ñëwee toog yonent bi romb leen ñu wax Zeyd demal ni yonent bi may ñu yàpp ba Zeyd di ñëw yonent daf ko ne ñoom lekk nañu yàpp ñoom lekk ñu yàpp ñu ne Zeyd bu ñu jaaxal fu ñu lekkee yàpp ñu jóg dem ci yonent bi yonent bi jox leen ay cure-dents ku sekkireetu rek daal di génne doon ñu yàpp sa gémmiñ mais lii jaaxal nañu depuis trois jours lekk ñu yàpp te ñu ngi secret di génnee yàpp lii fu mu jóge yonent bi ne leen ba ngeen yónnee Zayd est-ce nekkoo leen woon si deram ah doon nañu wax de mu ngi dem de xam nañu ne du am dara yonent bi ne leen ba ngeen di wax ne dafa mel ne da ngeen doon lekk yàppam ah mais nga xool loolu ñaata ñaata yoon la lay arrivé nit ci benn bés jiw bàkkaaru jiw bokk na ci bàkkaar bi gën a lëmbee jamono ndax loo xam ne dañu ne jëw si boppam dafa am xet dafa am xet waaye miin bu ñu miin jëw moo tax sentiratuñu xet wa ndax ni ñu ko miine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa am bés mu togg ak soxaaba yi jékki benn xet bu bon dal di gilli gaa ñi taf seen bëkken mu ne leen est xam ngeen lii ban xeet la ñu ne ko xamuñu ko mu ne leen dafa am mbokk yu toog ci place sangam di jëw xeetu jëw ba ne moo ñëw moo gilli nii chatet te ñun dem nañu ba miin nañu ko léegi nag miin nañu ko léegi kon nañu bàyyi xel suñu bopp

yooyu yëpp ay ayib la yoo xam ne mu ngi ci ñun tuumal nit ku nekk xam na ni bàkkaar bu rëy a rëy a rëy la aywa dara ku nekk yaa ngi jóg pour tuumal sa morom yi mu mel na tamit yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne il est temps nag ñu mën na fóotaat suñu jikko yi ñu fóotaat suñuy jikko nag jikko yi tilim na waaye ku nekk boo demoon sa ruq ne xaaral ma foot sama jikko génn set wecc keneen def noonu keneen def noonu kenn du ñu gën a baax le réew ndax réew ma la gën a baax le jikko moo la gën a avancé nañu yaaraat suñu bopp fexe ba ku nekk sa ayib yitteel nga bàyyi ayibu jàmm waaye tànk yaa ngi bàyyi sa bopp di lijjanti keneen rek yaa ngi tardé sa bopp mu nekk kooku boobu bokk na ci li tax seen relation ak seen boroom dal di dagg mu ni ko bokk na ci li nga xam ne moo dagg connexion bi dox seen diggante ak seen borom zaamtum xubba nabi wa taraktum sunnata boo ñaar lañu sopp yonent bi ku nekk yëkkati loxoom fëgg dënn ne man mii maa bëgg yonent bi waaye boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi dundee sunna yonent bi par rapport yëkkati loxo ne ñoo bëgg yonent bi ça fait deux nit ki boo ko bëggee kii dangay topp yoon ba mu jaar waaye bëgg naa yonent bi nangoo jaar yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxul ndeysaan nit ñi léeg-léeg dañuy dem ba dañuy fàtte xam ne yàlla kenn mënu koo nax suñu bopp dong la ñuy nax waaye yàlla kenn mënu koo nax moom yàlla subhanahu wa taala kon nak bay woote ni dama bëgg yonenti bi jeex ci mom tak ngal ngal na fekk ñu fekk la ngay dundal sunna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam way bu mel ne mu ne bokk na ci li tax seen relation seen diggante ak seen boroom dal di dagg bokk na ca yéen a ngi jëfandikoo xéewalu yàlla yi ci kaw suuf waaye santo leen yàlla cttt ngi lekk ci wërsëgu yàlla xéewalu yàlla yi ngeen di dunde ci kaw suuf waaye sant nit moo leen gën a yomb sant yàlla léeg-léeg nit yi dañuy dem sa fàtte ne yàlla moo ñu defal lii ndax ñàkk ko sant ak di sant keneen ku dul yàlla kon mbokk yi nañu gore way nañu gore bu ñu merloo yàlla sëgam nit moo lay defal nga sant keneen bàyyi ko mu mer waxatuma la meru yàlla te meru yàlla xajul ci ñun de meru yàlla xajul ci kaw kenn ci kaw suuf kenn mënta dékku meru yàlla kon nag bu ñuy lekkiti nañu gëm ne yàlla moo ñu jox bu ñu xewloo ba pari sante ko yàlla bo tolo ci jafe-jafe ñaan yalla yalla teggi la jafe-jafe joju santal yalla way fi ngi bay yalla nag dem santi kenen ni ni lolu bok na ci li tax relation bi dox suñu digënté suñu borom connexion ba dal di kon mbokk yi nañu ko defaraat way nañu ko

waaye ba bëggee nekk xaritu yàlla la mu bëgg nekk ci nit ngay dem gis ko mu neex la nga def koo xarit mais yaa ngi éviter lépp lu moo bañ ngir bañ seen xaritoo dagg yàlla tamit noonu la mel defal lu ne sa diggante sa borom pour seen xaritoo bañ a dagg waaye doo ko essayer sax doo ko jim doo ko jim te ba pare nag yaa ngi wax ni yow euh, xaritu yàlla nga déedéet la in shakartum la la azidannakum la yàlla wax ba ngeen ma sante man yàlla ma dolli leen kon ba bëggee nekk xaritu yàlla bëgg di am di yokk del sant yàlla yàlla ni boo ko defee rek man yàlla ma yokkal waaw soo ko defee rek ma yokkal kon nañu di sant yàlla ala kulli xaal war nañu sax te war na képp kenn nag parce que xaal boo mënta toll boo ko jéemee tolloo rek xaalu keneen ku la gën a féete suuf di sant yàlla léeg nga gis ku dugg oto accidenté faju ba am lu mu bàyyi ci moom waaye mu ne maa ngi sant yàlla ba yàlla mënoon a dogal leneen ci man moo tax mu ne xaal boo mu ta danga war a sant yàlla ndax lu mënta arrivé sa kaw mënoon na gën a grave ويالا ويفالك كون سانتريال كون بني خولي جانغت وحجي يب يب يب مي سانتريال ورنين كيف وقتو ووني وقتو ووني نا لومو لتك ريك امنا لومو لي خاري تكنام كون نك نيو دي سانتريال يليب لو خمني دفل نيوك واتو ناك نيون لكو ورن تي نيون متل نكو bu desee kay ci ñun ñii la des te mu ñun ñoo jéemul a xam yàlla may kan te boo ko jéemul la xam nag nang ko war a jaamoo doo koy wan a jaamu fa aarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni noo koy defe jéemoo xam yàlla jéemoo ci moom dal lu la mënta dal yàkk ko yóbbee sa bopp moo tax yàlla ni ibrahim ne leen ibrahim ibnu adham ne leen yéen a ngi jëfandikoo jumtokaayu yàlla yi ci kaw suuf yéen a ngi lekk di suur au lieu ngeen sant yàlla waaye fi ngeen bàyyi yàlla dem santi keneen fi ngeen di toog yàlla defal leen lu ne du ngeen ko sant ndax bu dee alhamdulillahi rek rabbi alamin loolu yomb na ci gémmi waaye ka ko wax fan la ko tibbee fan la ko tibbee bu dee tamit sant yàlla yow mi yàlla may alal nga ne doo dimbali kenn foo toll na alhamdulillahi rabbi alamin santoo yàlla waaye sa sant yàlla mooy ñu nga xam ne tan yi nga leen nga fexe gestu leen jàppale leen boo ko defee sant nga yàlla waaye toog rek ne duma dimbali kenn hmm? toog na alhamdulillahi rabbi alamin maa ngi sant yàlla santoo yàlla kon nag sant yàlla dafa bari ay façon ku nekk ak façon ba nga xam ne moom nga ko war a defee mu ne leen loolu bokk na ci li dox seen diggante ak seen borom kon nag mbokk yi nañu ko bàyyi xel nañu ko bàyyi xel de waa lu jëra bàyyi xel ndax yi mu wax ni yépp mu ngi ci ñun te moo ñu xañ nag moo ñu xañ yu bari ya nga xam ni waroon nañu ko am te amuñu ko moo ñu gàllankoor ci foo foo xam ne waroon nañu faa mën a àgg waaye mënuñu faa àgg ndax suñu comportement moo waral lu metti di ñu dal te waruñu woon a dal waaye li ko yóbbee mooy suñu comportement te warul nekk warul benn jàmm jaam war tëj boppam ci benn côté ci bu jàkkaarloog boroom bi subhanahu wa taala ndax wax na sànq ne yàlla baat baatu du la jëfandikoo suñu digganteek moom ay jaamam lañu kon nag jaam nag la sa sang bëgg nekk ci nga am jaam ah waaye la suñu boroom bëgg ñu ne ko duñ ca nekk waaye ñun lañu bëggee rek la ñuy nekk ah waa lu ñu mënta arrivé bu ñu yedde kenn ku suñu bopp rek ñoo ko yóbbee suñu bopp kon yal nañu yàlla taxaw yal nañu yàlla taxaw musal ñu ci tarxiis ndax teket bari na mbokk yi tarxiis ci yoonu seytaane te loolu baaxul yal nañu ci yàlla doolee musal waaw nañ ko di bàyyee xel bu baax nañoo sàmm suñu diggante suñu borom sàmm suñu diggante ak suñuy morom bu ko defee lañu aado muy ñaanal mbokk yi génn àdduna bu ñu paree ñu ñëwaat léegi incha allah te ji bu mu bi jàng fatiha fukki ixlaas ak benn bismillah ñaanal ñi faatu ñépp nag 6.3 mm <clears throat> خالصا وكان الله غفورا رحيما يلني يلي يرمنيب تاكو لنتي على الجنية كان كبي ليسان سيني ولري سيني الصبي أجا أبي مبين ليسان غا خمني وقت ونري دين كلان ديك ميدو بيتي أميسيون بي ليسان يلني كو يلي يرم خريكو على الجنة تلتوك تلتوك تلتوك تلتوك تلتوك تلتوك tabarakallah ndeysaan jeexoon takk ci ndeysaan sëñ Babacar Si tabarakallah suñu wayjur yi yal na yàlla yërëm leen mbokk julli yi faatu yëpp yërmande yàlla yaatoon na yal na leen yàlla dugal ci yërmandem tàbbi leen aljanna ñun ñi desandi tamit yàlla doole ñoo xiirtal ci boppam mu musal ñu ci pexem seytoon ba nga xam ne bu ñu ko wuy jee fekki ñu jiite woon ca biir aljanna ma zalika ala allahi bi aziz mu mel ne yéen a ngi seen mbokk yi daara oustaz Bibi Diouf fii ci rajo yi CFM 91 point 3 bu mu jokko bi 88 628 15 15 88

muy ay jàngat yoo xam ne buñ ciy def rek dafay mel na suñu réew lay wax mu ne bokk na ci liy dog connexion bi dox suñu diggante suñu boroom ne nañu gëm nañu ne safara am na gëm nañu ne safara am na ëllëg yàlla dina jël ay doom waaye dama duggal leen biir safara di leen lakk gëm nañu ko waaye dawuñu ko dawuñu ko ndax bu ñu leen safara am na ay nit lañu fay lakk nga ne gëm naa ni loola am na te yow toujours yaa ngi def loo xam ne safara la lay yóbbu nu ñu day mën a compter gëm naa ne safara am na waaye toujours maa ngi def loo xam ne safara la may yóbbu ragal naa safara te toujours maa ngi ut yooni safara te yàlla ba mu waxee ne inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura ci la wàccu ñun tànnaloo naa la ñaari yoon bii nag yoon bu leer la leer na nañ ne amul benn danger bu fa nekk boo ko toppee di nga dem ba aljanna bii nag yoon la boo xam ne dafa lëndëm tëris am na ay jaan am na agresseur am na lépp ci yoon bi ci ay métit waaye boo ko jëlee na safaral la jëmi nga wayef bop bu toll ni nga ne xaaral ma tànn yoonu safara kon ëllëg ba fa duggé ya ko yobé sa bop te bu boobaa nag man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla tooñul kenn soo ëllëgee ku nekk la nga daj la nga gis yaa ko liggéeyal sa bopp compte bàmmeel ya ñu ngay dem ñu ngi envoyé mu ngi dem ca compte ya muy lu baax mu ngay dem ci compte ya muy lu mu ngay dem ci compte ya rek kon nañu ko feesale ak lu baax te benn bu baax boo def ñu bind la ko fukk waaye benn bàkkaar benn bàkkaar lañ lay bindal kon la góor gi waxoon bu ñu sàggan mukk ba benn benn tuyaaba yi benn benn bàkkaar yi di ëpp fukk-fukk tuyaaba yi loolu sàggante la kon yàlla nañ ci yàlla musa moo tax mu ne na ngeen gëm ngeen ne safara am na waaye kenn ci yéen jéemu la xenc yoonu safara yoonu aljanna yéen a ngi xenc yoonu safara te yoonu safara bari na ay bunt ki nekkee lu xaram mu nga ce yoon kiy jaay te njaayam nangu ko sellal mu nga ca yoon kiy jëflanteeg doomu aadama yi di leen lor mu nga ca yoon yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ne yu yóbbu nit safara la waaw ah. kon nag lu jërë bàyyi xel ba defal ñu koy ziar bu baax kon lépp lo xam lu yóbbu ni safara la so bañe dugg safara bu ci tek sa tànk way bo ci tek sa tànk mu lay yóbbu mais ñatt ñoo ci nekk di ëllëg ñu ngi seen bi bammel ya ñu ngi commencer di regretter yaa laytanii qaddamtu li hayati aka neexoon aka neexoon ma jitalon lu bax ta bamay may dund ay fekk fa nga ko waxee du foofa loolu àdduna nga ko waroon a xalaate nga def lu baax loo xam ne bu boobaa boo liggéey doo bokk ci ñuy wax yàlla te ni qaddamtu li xayaati ah mu mel ne tamit nee na yéen ngeen safara am na gëm ngeen ne safara am na kenn ci bëggul dem safara waaye yéen a nga ca yoon wa ba ci ka nekk ci caaxaan boo ko ne foo bëgg dugg mu ne laa aljana laa bëgg a dugg bi ci tegu mooy na ngi ne aljanna am na gëm ngeen ne aljanna am na yéen ngi nii yéen ngi bëgg a dugg aljanna waaye kenn si yéen nangul liggéey lu ko yóbbu aljanna ca tet tet kenn si yéen

musiba la pour doom waaye tamit ci yóbbu nit safaar nit ki dañ koy wuti da ngay dem ba la fin a wax nit ñi lan la bëgg léegi nag lan bëgg léegi ndax yàlla bëgg ñu jàmm ñu ne ko bëgguñu li léeg la ñu soxla kon loolu bokk na ci li tax suñu relation ak suñu boroom dagg mu ne nee nañu gëm nañu ne dee am na waaye waajaluñu dee te benn question nag qu'y a-t-il après la mort maaza baadal mawti gannaaw dee luy ñëw affaire la gannaaw dee luy ñëw dee am na te waajaloo dee mooy la ma waxoon sànq ki doon wax jóg leen waaj waaj jot na kon nag nañu waajal suñu bopp te xam ne yàlla négligé wuñu ñu ñu booleeg malayika yoo xam ne ñu ngi bind suñuy jëf boo ëllëgee ñu présenté ko ci kanamu boroom yàlla na fekk mu nekk lu baax kon nag nañu waajal de تي واجل كنك لي انتي بي وخون يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وينك وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لأنك باي خل سدون دعا دونك لو باخ لو من لو باخ لو نخ لو na ko fàggu ba mel ne dañu daan da ngay dund ba faw waaye na nga bàyyi xel àllaaxira na ba mel ne dañu laa ne ëllëg ngay dee kon nañu préparé dee kenn xamul fan lay ñëwee kenn xamul kañ lay ñëw kon nag loo xamul fan laa kañ la na nga leerlu say mbir lii sant faam bis maa ngi doxantu ànd ak Papa Abdoulaye Diouf Demba Gueye ba église u parcelle am na ñuy toog foofu di blotte rek nag di karta rek ci benn grand place benn guddi waaye maa ngi gis ku ñu tuddee ku wéradi ci ñoom loolu ñu ko jàppee waaye la ma jàpp mooy kooku moo leen gën a wér mu nga sol ay yére yu xotteeku taxaw tiim leen nag loo xamul fan laa kañ la na leerlu say mbir loolu lay wax waxam yépp loolu la loo xamul fan laa kañ la nanga leer lu say mbir loo xamul fan laa kañ la na leer lu say mbir ay gars taluñu ko yéen a rey naa la reyoo ma waaw baatreel waaja ngay waxaat ma ne cey waay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ak a neexoon ñu dégg wax waa ji ñu ko déggoon ne dootuñu talati mukk toog fii naan dañuy buloot waaw ah. kon nañu waajal dee te xam ne dana ñëw gan la koo xam bu ñewé bëggul lén lañ koy terale lu lu roox kon na sa rooxa googu na ko sellal boo léegi nga bok ci ñi nga xamne ñam ñoom la ñuy wax yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiyya faduxuli في عبادي waduxuli جنتي نمن تابوك waaye toujours nga topp ci ñuy gunge nit ñi caar mel yi toujours nga bokk ci ku ñuy robee rek yaay nekk ca kanam waaye nanga woo préparer sa deeyoo kenn gënu laa perte kon nañu préparer suñu dey te xam ne nit ñi talatuñu kenn nag nitu jamono talatuñu kenn ku yaakaar seen ñaan di perte sëgëm ci ba ñuy waajal néew bi ay nit a ngi fële taxaw di wax seen soxla àdduna fàtte nañu ne am na ku ñuy waajal si biir la ñu yóbbu la di la yóbbu ca armeel di la yóbbu ci kër gu mujjik xalaatuñu moment yooyu foo toll ñu nga ci seen waxtaan waa àdduna yi taluñu la bu fekkee léegi yore woon sa bopp lu baax perte nga ñu nga dem ba ca armeel ja di la dugal ci sa kër gu mujj Sayid Mbay Juuf tabarakallah ziar na la bu baax waaw ah, ñu ci kër gu mujj jël nañu la ba dugal nañu la ca pax ma nit ñi war a xalaat la fay fekk waaye ñu ngi ci seen waxtaan waa adduna ya su boobaa boo léegi woon lu baax perte nga nga dem nekkat koo xam ne ki ñu ngay suul pax ma jéemu ñu xalaat loo fa nekki ñu nga ci seen waxtaanu àdduna ya loo fa liggéey woon perte nga wan nañu la gannaaw kenn waxatul say mbir ku nekk yaa ngi lijjanti marché ñu ngay lijjanti làmb ñu nekk ci kër gi ñu ngay lijjanti natt ya ñu ngay lijjanti jaale ya talatuñu la soxla àdduna dugal na leen fàtte nañu laa ñaanal dem nañu seen yoon foofu boo fa léegi woon lu baax perte moo tax ma ne nañu préparer suñu dee ndax nit ñi talatuñu di ñaanal nit ndax àdduna moo leen yitteel ñu néew néew ñoo koy def dëj boo ci dem ñu nga làng ay grand place ci biir bâche bi au lieu que ñu wax ci baax baaxu kii dem ñaanal ko waaye déedéet ñee ñu ngay waxtaane ci match ba ñee ñu ngay waxtaane ci làmb ga amoon ñee ñu ngay waxtaane ci wàllu natt ga ñee ñu ngay waxtaane problème bu jàmbur yow mii dee na yaa nga tëdd fa nga tëdd danga fay daj ñam xamuñu ko kon nekk il est temps ku nekk di ñaanal sa bopp balaa ngay dem il est temps ku nekk waajal sa dëy balaa muy ñëw si yow il est temps ku nekk leeral sa bàmmeel ut ay wéttal balaa yàlla di la wutal wéttal yoo xam ne lu la neex wéttal yi nga wutal sa bopp may def yu baax jëf yu baax yi waaye boo ko wutalul sa bopp bu ëllëgee fekk fa yeneen wéetal ñu wax ne contraire ba lay doon yàlla musal mu ne leen loolu bokk na ci li tax seen diggante ak seen boroom daal di dokk mu bokk na ci li tax connexion bi dox seen diggante seen borom dokk mooy ne da ngeen di dem ba armeel yi rob seeni néew au lieu loolu waar leen waaye du leen waar koo xam ne yéen nekkoon di dund di ànd dem fu ni di defandoo lu ni nga dem ba tey ji ñu ngi koy sang sangul boppam ñu ngi wut si ba gën a ñàkk njëg war koo ko solal muuree ko mënu mu ngi yàpp ñoo ngi koy waajal te moo daan waajal boppam ñoo ngi ko teg tey ci kaw jàkk jàppoo ko di ko yóbbu te moo daan doxal boppam ñu ngi waxi pax dugal ko fa sañ tabañ te ba muy dund suuf bu ko mosana laal mu faxasu mu daan tëdd ci kaw lal bu nooy ventilo tiim ko tey mu ngi tëdd ci biir bàmmeelam ñu ngi jël suuf jóor ko ci kawam boo ko ma teg lu diis mu jóg teg ko ne tey ñu ngi jël lu diis teg ko ci kawam mënu koo dindi soo ko mësaan a takk ak buum dana am pexe yu muy nas ba deñ te ñu ngi takk baaraam yi ak morso yu te mënu ko dindi nga war a xam ne yow mi ko yóbbu bés dana ñëw foofu ngay toll au lieu que nga gën a dellu ci yàlla waaru ci mbiru yàlla waaye loola waarul la yaa ngi génnaat ci biti dellu na meloon au lieu que nga changé comportement waaye loola changé wul la yaa ngi delluwaat lu gën a yées sa nanga meloon bu njëkk te mu wóor la ne kii li li yóbbu kii lu la fi bàyyi te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon nañu bàyyi na leen ñaar yoo xam ne war ngeen cee mën a waaru bi naatiq la bi soomit la ñu nekk ko yonent bi ñaari ñu bàyyee bi naatiq la bi soomit bi mu ngi wax ñun bay dafa noppi bi wax ni may ban من هنا القرآن الكريم تزور من جوا خكين من هناك الصامت بينك ممي دي الكموار لك در دوت الله وارتي نياتا جاي نيت لنيو كن خم نياتا لا كوفيد 19 نياتا لنيو في يوب نياتا لا في يوب Seyda As Guèye maa koy ziar bu baax covid 19 bi ñaata yóbbu ci ay nit ba mu ñëwee koo gis mu nga ŋaaw gémmiñam ak masque bañ feebar bi dugg ko ndax ragal na pour mu yóbbu ko waaye dem nga ba feebar ba neewatu fii rek nga bàyyi ko wat nekk ci ay xeeti caaxaan suñu bopp lañu mën a nax waaye yàlla kenn mënu ko nax bi taxna na mbokk yu teddi yal nañu yàlla taxaw yal nañu yàlla musal ci pexem shaytan yàlla buñu ñu yàlla buñu yàquli li sen soxna Fadi Gueye ziar nañ ko bu baax سيدة astu تبارك الله ليسن ah mu mel ne nag yëf yaa ngóog ñu defaraat suñu dund ñu defaraat suñuy jikko lépp lu bon ci ñun ñu seppi ko sànni ko fële lépp lu baax ñu gën koo saxal si bu ñu bëggee toujours connexion bi di dox suñu diggante suñu boroom

di ñaanal ñëpp suñu ajaa ajaa Zeynab tabarakallah ajaa Mariama Ndaw Seydina El Hadji Omar Diallo ñu ngi ziyaara ñëpp oustaz Jibril Sow oustaz Medoune oustaz Mor Ndaw tabarakallah suñu technicien Seyd Mohamed Juf di ziyaara bu baax Seyida Dem Euh, suñu yaay jaaja jëy na ba wan ak njaboot ngi yëpp ñoom Ibrahim tabarakallah Sayid As Guèye Sayid Mbaye Diouf Sayid Mbada Fall Sayid Aliin Diouf tabarakallah ñu ngi ziar ñëpp Sayid Aliin di ziar njabootu El Hadji Ousmane Diouf nag teg ko ci suñu loxo wayjur wu jigéen ajaaw mi siisi tabarakallah seydina ali wab samba diouf dawoud ñoom moxtar ñoom jibril ñoom mbay diouf tabarakallah ñoom abbas bab abdullahi diouf abdusalaam ñëpp tabarakallah ñu ngi ñaanal ñëpp aji binte diouf tabarakallah sayida amina fatima yàlla na yàlla sàmm ñëpp fajal ñu aajo yi ci zahir ak ci batin suñu yaay ajaaw tabarakallah sayida Mantulaay Njaay sayida Xadijatu Njaay sayida mant euh, Jeynaba Sall tabarakallah mati siis mati wan mati aw sayida ñaaña jàmmi tabarakallah rahmatullah wa daawuda ñu ngi euh, sayid nabu mbay tabarakallah ñu ngi ñaanal di leen wax juma mubaraka ab Samba Diouf xam nag la ma koy tegal ci tur woowu xam na ko ñu ngi ziar ñëpp di ñaan rek Ousmane Diouf tabaraka Allah yal na yàlla defal ñu xéwal gu kawe suñu njort waaw waa madrasa Mohamed Tayib Oustaz Ousmane Thior ak waa madrasa ba yëpp tabaraka Allah sama école bopp ñu ngi ziar ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp si Daouda Diouf alhamdulilahi rabbil alamin Mohamed Omar ñëpp ñu ngi ziar mama Sinabu tabarakallah sama xarit boobu nag Abbas tabarakallah Abel Diouf ñeen yàlla defal ñëpp xéewal ma Abbas ak ñooma Njaga ñëpp tabarakallah Maguette ñu ngi ziar ñëpp nag njaboot gi yëpp Adja Fahma Gueye ziar nañu ko bu baax a baax a baax tabarakallah tabarakallah yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla defal ñu saadata daarayin yàlla na yàlla sàmm ñu ci zahir ak ci baatin ñoom faama ñëpp alhamdulillah yàlla na yàlla sàmm ñu day seen waxtu wi ci raw rek fekk ñu nga toog ci daara ja di ñaanal góor gi Alxaaji Ousmane Diouf waaye nag ñaan yooyu du bes boobu rek waxtu wu rek ñu ngi koy ñaanal yàlla dañ ko yàlla yéegi ak mboolem ñu faatu gannaaw émission mën nañu jokkoo ci 77 551 83 65 77 551 83 65 mère Kéeman Adja Fat Ndiaye amoo tefes waa kër soppe Oustaz Bibi Diouf yi kenn desul ñëpp maa ngi leen di waa groupe Sadiada 1 ak 2 tabarakallah léegi léegi oustaz Mor Ndao ma war a ñëw ñu bàyyi ko xel bu baax di leen dig dajaal juma bi di ñëw incha allah huit heures ba neuf heures ci kàttanu borom bi wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh